wa man ihtada bi hadyihim min al muslimina wal muslimaati ila yawmi diini yéen sama mbokk jullit yi ak fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf rawatina yéen waa groupe bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di sàkku seen ñaan di ñaan koor gi yal na mat ci jàmm fukki njëkk yi war nañ ko ci jamm ak salam yenn jamm ji yokku ci fukki ci digg bi yokku ci fukki yu mujjii te si nangul ñuko ko bi jaay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yalla bu mu doon suñu mujj koor mukk weeru koor neexut de waxon na ko daaw ay mbokk julit ñu jambar koor gi may le man de len moma ku ne ngi jàmbat koor dafa métti dafa métti te kenn ku ne bëgg nga xooraat téeméer at ci kanam kon jarul jàmbat jarul jàmbat lu baax du yomb ñu ne tekk tekkaaral mais ne ku nekk ci ñun bëgg nga xooraat téeméer at boo xëy naan koor dafa métti koor dafa métti kon nag tabaarakallaahu te it ndigalu borom bi la kon mu ñëk sant rek mu ñëk sant mu ñëk sant mu ngir ndigal borom bi la def jëriñu ñàkk def loro, sant ngir am ñu ko teewoon daaw teewooñu ko ren am ñu ko mënoon daaw mënuñ ko ren am ñu ko man teewee ko te nanguwuñ ko am ñu ko man teewee ko nangu ko te amuñ liñ dogoo amuñ liñ dogoo ñu ngi koy def di wuti ndëgu kon nag yow mi ci yàlla musal rek santal yàlla tabaarakallaahu ahsanu xaaliqiina kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fas yéene ñëw nag ci naafilaat tey gi incha allahu muy naafilaat guddik fukki la ñett guddik fukki la ñett mooy naafila gi ñuy joxe nii incha allahu ñu ñëw ci kàttanu yàlla naafila gi muy guddik fukkeel ak ñett ne ku julli ci guddik tey gii ku julli ci guddik tey gi ñaari rakka rak bu ne gannaaw fatiha nga jàng qul huwallaahu ahad ba mu jeex juróomi yoon kon moom yàggul te nu la bëree yiw ñaar rakka ngay def bu la neexee nag ñaar rakka yi bu la neexee nga def ko doo nga dem ci jàkk ja yaa bu la neexee nga def ko doo dem ci jàkk ja bu la neexee dem ci jàkk ja julli fa ànd ak mbooloo mi bu ñëw toog ba dalluwaat def ko bu la neexee nga xaar bu jël def ko kon li ma bëgg wax mooy du ne naafile gi ñuy joxe nii ci nga yem net képp képp déedéet li tax ñu koy joxe mooy njëriñ yi ci nekk njëriñ yi wante ku mu neex ci lu la neex ku mu neex ci lu la neex ku mu neex lu la neex waaye njëriñ ci nekk moo tax ñu koy joxe moo tax ñu koy joxe kum mu neex def ko doog a dem ci jàkk ja ku neex. ku neex nafil sa néeg yow kenn def ko defaat yeneen waaw kon ku julli tey ci guddi gi ñaar rakka rakka bu na gën a fàtte ixlaas juróomi yoon suñ borom ci dem dana ko jox ci yoon comme ku julli junne rakka xoor ñaar fukki xat ñaar kai yii ku def loolu am ko ci abay ku junne junne rak ku julli junne ka hor ñaar fukki at te hit borom bi ci yërmande dina ko jox pale ci aljana pale bo xamni da fay nek wurus wu tal pale wurus wu tal. lako la jox ci aljana pale wurus wu tal, tal, tal. te wetu pale ba fay am juróom-ñaari nek wetu pale ba benn néeg ba ñu ko liggéey ci xaalis ci lañ ko liggéeyee beneen ba ñu ngi ko liggéeyee ci wurus wurus na ay xeet la am ñu wax sahaab ak bu ci wurus woo xam ne dafa nekk lu'lu lu'lu wurus lu'lu ci lañ ko liggéeyee beneen bi ñu ko liggéey ci wurusul marjaan beneen pala bi ñu ko liggéey ci wurusul sabarjat juróom-benn ba ñu ngi ko liggéey ci wurus yaaquut juróom-ñaareelu néeg ba nag moom ñu ngi ko jóge ñu ngi ko liggéey ci leer leer kon dama ne pale ba nga xam ne pale wurus la wurus yu weex tàll la pale ba juróom-ñaari néeg ñoo ko wër benn néeg ba ñu ko liggéey ci xaalis beneen ba sëhëb beneen ba lu'lu mu ñett beneen ba marjaan mu ñeent beneen ba sabarjët mu juróom beneen ba yaaquut yaaquut moom ñu bari dégg nañ ko mu juróom benn juróom-ñaari ba mooy leer lay doon te néeg bu nekk am na junni ci ay lal lal lal bu nekk ay xóori xëy na yoo fa nekk ay jéebiir nekk ay soxnaam ci aljana kon moo nekk noonu kon ci tënk daal li ci nekk ci tiyaabu nit mënu ko wax ci làmmiñ neex na dégg nag ndax genn guddi wax nu yaa moo gën junne weer moo kon ku leen ku ne boo ci defee ñaar rakka di nga mel ni ko julli junne rakka mel ni koo xam ne woor nga ñaar fukki at te junne weer mu ngi nekk juróom ñetti fukki at ak ñetti at yu tofal ñetti weer bu ma juumu junne weer nekk na quatre-vingt-trois cent yu tofal ñetti weer bu ma juumul kon affaire gaa ngi noonu affaire gaa ngi noonu ñetti weer wala ñeenti weer affaire gaa ngi noonu ñu ngi bala àq ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñaan borom bi nag mu nangul ñu ko nangul leen ko fulal ñu ko fulal leen ko yokk wér gi yokk sutura bi yokk sag bi tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina kon nag ñu yéen ñu mu mujjoon a woor naafile gi mooy seen naafile ak suba jërë ngeen jëf yéen fekk suba te dal ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa